centre ministre des collectivités territoriales centre président AMS centre surtout gërëm surtout président de la république parce que a vu cette vision bu mu déroulé que a bu pour régions euh, région qui communes yi commune bu nekk euh, Kédougou wala Dindéfelo ba commune bu Dakar Plateau nek ben donc vraiment loolu lu rafet la surtout ñun ño gëna content ñun ño xamantene ño joggé ci région Sénégal oriental bo xamantene région bo xamantene dañ ko fàttale woon loy tax tout le temps man bu wax Sénégal oriental dama leen du Sénégal oriental c'est le Sénégal oublié parce que bo xolé presque bo duggé ci région bi fofu commune yu bari da ngay xol ñew ci commune do gis vraiment jëmmu état luy do gis bâtiment infrastructure ne la état Sénégal def wala Sénégal def des fois sax ñi que presque Sénégal décentraliser euh, activité gouvernement bi territorialiser politique publique ñun dañ koy lu accompagner féliciter ko ko ko. bi vraiment bu histoire comme ça va rester dans l'histoire tay euh, vraiment euh, bés bu décentralisation la gox yi ak vraiment euh, décision yu président jël ci bi dina vraiment maire et dina tax aussi réew parce que développement ci base dem ci sommet la mais pas ci sommet dem ci base le président Macky Sall comprendre loy tax décentraliser vraiment politique publique territoire